gis nga doomu aadama dara xajul ci moom lu dul jàmm ak salaam nit ki jàmm ak salaam rekk moo xaj ci moom aw ay xajul ci doomu aadama naqar xajul ci doomu aadama moo tax ña nga xam ni léegoo léegi ñu gis seeni mbokki jullit ñu raw leen ci wàllu àdduna ci am-am walla ci man man wala sax ci xam-xam xëy na xolub iñaan jàpp leen ba tax ñu dem di jabar seeni mbokki jullit yooya tàggale leen ak seenum xel tàggale leen ak jàmm tàggale leen ak sax seeni mbokk xañleen bànneex bi ñu waroon a am ci àdduna lii day laa wax ni képp koo xam ni yaa ngi koy def boo amee jàmm ci àdduna yit doo ko am ëllëg ci kanamu yàlla subhaanahu wa ta'ala képp koo xam ni danga ñabar sa mbokkum jullit ba mu tàggook xelam léegoleeg sax nga njabar ko ba mu tàggook ay sëram muy dox di dem dara du ko wër du mbubb du tubéy du dara lu ko war muy dox di dem fekk xelam tàggoon ak moom wala muy dund ci ñàkk jàmm subaak ngoon problème bu dégg bëccëg jafe-jafe képp ku teg lii dey sa mbokkum jullit mani soo amee jàmm ci àdduna it doo ko am ëllëg ca kanamu yàlla subhaanahu wa ta'ala képp ku bëgg jàmm ci kanamu yàlla ëllëg yowmal qiyaam dangay may jàmm say mbokki jullit yonent bi sallallahu alayhi wa nee na al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi waaye ab jullit dëgg mooy jullit bi nga xam ni jullit ñépp dañoo mucc ci ayu sa làmmiñ ak ayu sa loxo soo bëggee jàmm ak salaam ci kanamu yàlla mayal say mbokki jullit jàmm léegoo-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy nekk seeni mbokk ci koñ nga nekk faak sa beneen mbokk bu baax amul benn jafe-jafe amul benn problème defu la dara tooñu la yàlla may ko wërsëg ci xam-xam mbaa ci mën-mën baa sax ci am-am loola naqari la ba tax nga jël sa làmmiñ di ko teg ci kawam subaak ngoon ba bëccëg di yàq deram ba kookee du mën a sax jaarati ci koñ bi ndax li koy waxal kookee képp ku ko gisati di xalaat ci moom lu ñaaw lañu ko doon waxal te fekk dara taqiwu ci laalewu ci waaye nag am na koo xam ne neexu ko ba tax mu jël aw lamiñam di yàq deram subaak ngoon gu ba bëccëg képp kuy def lii day su amee jàmm ci àdduna it du ko am ëllëg ci kanamu yàlla subhaanahu wa ta'ala te sax nag du ko am ci àdduna mukk yàlla borom bi nee na إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة yàlla nee na ñi nga xam dañuy wuññi ay ñaawteef ci seeni mbokki jullit ñi nga xam ne dañuy wuññi aw ñaawteef ca ña nga xam gëm nañu yàlla yàlla mu ne ñooñu day am nañu mbugal mu metti ci àdduna ak ëllëg yowmal qiyaama wallaay léegoo léeg nga toog di yàq sa deru mbokkum jullit te mu wóor la ni li ngay wax dara du ci dëgg waaye nag daf laa neexul rekk moo tax nga bëgg ab deram di yàqu moo tax nga bëgg ku ko xool xoole ko bët bu ñaaw moo tax nga bëgg du avancé ci dara foo mën a dem dem fa di yàq ab deram ba dootul jarati ci dëkk bi dara ba kenn dootu ko nawloo nga xañ ko jàmmam indil ko naqaru àdduna indil ko xalaatu bu ba bëccëg ay waay yéen mbokk jullit yi nañu leen ragal yàlla ci sunuy mbokk nañu leen ragal yàlla ci sunuy mbokki jullit nañu leen ragal yàlla ci sunuy mbokki jullit tey wax ci ñoom lu baax li ñu xam ci ñoom di wax ci ñoom lu rafet li ñu xam ci ñoom waaye donte sax buñ xamoon ci ñoom ay ñaawteef war nañu leen a mën a suturaal yonent bi sallallahu alayhi wa day nee na képp ku suturaal sa mbokkum jullit yàlla dana la suturaal ci àdduna suturaal la ëllëg yowmal qiyaam waaye nañu leen suturaal sunuy mbokki jullit bu ñu xamee ci ñoom aw ñaawteef donte dangaa toog ci béréb sax ñu nekk fa di yàq derub sa mbokku jullit te mu na la ni li ñuy wax ci moom ci lu ñaaw doonte dëgg la war nga ko mën a défendre ba ab daram du fa tilimee ba ab daram du fa yàqoo ginnaaw bi soo jógee nag dem waxtaan ak sa mbokkum jullit bu dee daa def lu ñaaw nga yedd ko waar ko ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lii moo gën a rafet ñuy toog di yàq deru sunuy mbokki jullit waaye nañu leen ragal yàlla ci sunuy mbokki jullit tey bañ a wax ci ñoom lu ñaaw tey bañ a yàq tey bañ a yàq tey bañ a yàq soxorante beeg iñaanante bi day bari na ci sunu réew mi lool te ñu ngi woote ak jullit ab jullit day jàmmal mbokkum jullitam ci làmmiñam ak ci ay loxoom du ko wax lu ñaaw di yàq daram du yëkkati lu ñaaw di ko sànni ci moom nañu leen delloosiwaat sunuy xel tey ragal yàlla ci sunuy mbokki jullit yàlla day su fekkoon manees na ko tudde am mbër dañu naan mooy mbër mi nga xam ni mi ngi gis ñépp di dégg ñépp xam lépp man lépp am kàttan te ku nekk bés dina ñëw ñu takk say loxo ak say tànk fat say bët ak say nopp ub sa gémmiñ gàddu la jëme la ci yàlla moom yi nga xam ni mooy mbër mi daan ñépp loo masaana def ci àdduna danga ko wax ca borom bi tabaraka wa taala soo daan yàq say dari mbokki jullit te dara du ci dëgg danga ko layoog yàlla sa borom su fekkee danga daan njabar say mbokki jullit leen xañ seen jàmm ak salaam danga ko layoog borom bi tabaraka wa taala ëllëg yowmal qiyaam koo masa tooñ ci àdduna ëllëg yowmal qiyaam danga ko ko fay ndax yàlla du jël àqu kenn di ko jox keneen yàllay ko maandu yàllay ko baax di ko bari yërmande digal ñu nag ni nañuy yërëmante ci sunuy biir tey waxante lu baax tey defante lu rafet bul nangu mukk ñu yàq sa deru mbokkum jullit ci sa kanam bul nangu mukk ñu yàq sa deru mbokkum jullit ci sa kanam défendral sa mbokkum jullit donte danga nga xam ci moom ak ñaawteef soo jógee nag doo ko waar wëlbati ko ba mu dellu si waat ànd ak yow ci yoon wi lii lañu yàlla digal ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam soo fexee ba sa mbokkum jullit am naqar mu jóge ci yow muy xalaat di jeex ñu naan waaw kii lu ko dal lu ko dal lu ko dal ba xëy bés mu tëdd parce que jeex na tàkk mu tëdd tëdd ñu naan lu ko dal ba mu yàgg mu faatu fekk ab naqar moo ko rey waaye bul nangu teg lii sa mbokkum jullit lii bu ko nangoo teg sa mbokkum jullit lii bu ko nangoo teg sa mbokkum jullit nañu ragal yàlla waaye day mbokkum jullit bi bu amee jàmm day xëy di gën a leer di gën a rafet di gën a jekk di am yaram ñu naan moom day daa am jàmm léegi daa am xaalis fekk lan aw ay akub naqar xajul ci doomu aadama waaye jàmm ak salaam rek a xaj ci moom kon nañuy leen di jàmmal sunuy mbokki jullit ci sunuy làmmiñ ak sunuy loxo waaye léegoo lekk am koo xam ni day yàkkamti na lool mbokkum jullitam def ak njuumte ba mu tasaare ko ci internet bi whatsapp ba facebook ba yàq deram ba kenn dootu ko nawloo mbokkum jullit bul nangu loolu bul nangoo yàq sa deru mbokkum jullit ci internet mbaa ci whatsapp internet bi ak whatsapp bii day yàq der ak yàq mbokkum jullit taxu koo jóg te fàttaliku ni loo mën a dund sag dund la ca des bareetul jamono jii nu toll day dund fi téeméeri at bareetul de te téeméeri at dund ko du dara kenn ku ci nekk daal bés dina ñëw mu tëdd ci kanamu borom bi tabaraka wa taala du man dara du am dara du xam dara yàllay borom kàttan di borom man-man kii day lañu war a ragal kii lañu war a ragal ci sunuy jëf ci sunuy wax ak ci sunuy diggante ak sunuy mbokki jullit ak ci suñuy diggante ak suñuy mbokki jullit képp ku yàq der ci derub sa mbokkum jullit ci internet bii mbaa ci whatsapp beeg facebook bi day ëllëg di nga ko layoog borom bi tabaraka wa taala waaye nag ku suturaal sa mbokkum jullit borom bi dana la suturaal ci àdduna suturaal la yowmal qiyaam kenn ku nekk ci ñun nag soxla na yàlla suturaal ko ndax ku ne wax nga mbaa nga jëf loo xam ni bëggoo kenn dégg ko mbaa kenn xam ko te yàlla xam ne lépp di la suturaal noo nii la borom bi suturaalee te nga soxla suturaam suturaale ko say mbokki jullit mbokkum jullit